واجعل كثيرنا يريد للسقيم أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk jullit yi mbokk taalibe yi yéen ñi ni ci Touba monde bi di si rajo si doon layal Touba monde bi nekk ci Touba Italie kàddu gi bàyyi ko fii ci Touba Milano ci studio Serigne Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Cheikh Mouhamadul Bachir ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar suñu émission bi ñu tuddee Makarimal Akhlaq di waxtaan yoo xam ne dañ leen koy tànn di leen ko indil bis bu ne mu ngi tàmbali altine ba juma bu juróom-ñetti waxtu jotee ci ngoon ki leen koy taxawal di seen mbokkum taalib Ibrahima Ndiaye Khalil di jiital ci nuyoo ak siyaar bi xalifa général du Murid di ñaan su borom yàggal ko fi ci wéree ko di beral cant ak ngërëm ki ci wàllu xarala gi sëriñ Modou Mbaye Thiam Baye Fall suñ waxtaanu tey ñu am yéene indi waxtaan wi nga xam ne sëriñ Ahmadou Mbacké bu Daarul Muxti mooy ki doon amal waxtaan wi waxtaan wi nit mu ngi ko doon amal ci Daarul Muxti waxtaan itam solo si mu am ak lim làmbooy ci njëriñ moo war tànn ko indi ko ci biir makaarimal axlaax ngir ñi doon topp jataa bi sëriñ bi démb mi ngi doon waxtaan ci guddul maqus waaye waxtaan wi nga xam ne moom la tànn tey nag mi ngi jëm ci diggante sëriñ bu mag bi ak ngin ngën ji mindéef sallallahu alayhi wa sallam gi nga xam ne ak dayo bi nga xam ne moom la ngën ji mindéef am te sëriñ bi firndeel ko ci mbindam firndeel ko ci jëfam firndeel ko ci waxam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 di ziar bu baax itam sëriñ kara moom sëriñ koso di ko ndokkeel itam ci bis bi nga xam ne mooy jublu si te mooy bisub ndoguy sarsaara yi nga xam ne sëñ koso liggéeyama bisam la itam ndax Cheikh Mouhamad Xaw la moom la ci daal liggéeyal ci bis boobu yàlla dogal itam bis bi mu wujjee boroomam ñu war koo ñaanal tombe ak bis yim daa def liggéey boob yi loolu nag di tawfeex ju rëy yoo xam ni suñ borom baaxe na ko sëriñ Koso ba tax na noo ngi ñaan yàlla dolli ko ay leer fam ne te ñi nga xam la fi ñoom la fi bàyyi itam njaboot gi yàlla teg ci loxo te gën a dëgëral dolli sutura itam sëriñ eh, koso sëñ Kara di siyaar itam sëñ koso mi nga xam ne <clears throat> moom la euh, doxale suñu digg moom ginnaaw loolu nu war a waxtaan ci lu aju ci diggante sëriñ bi ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak diggam ak siyaare ji rasulullahi sallallahu alayhi wa ku ne xam na ne sëriñ Tuubaa dafa jeex ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam da ko bëgg bëgg gu rëy gu euh, kawe goo xam ne deselu ci dara ndax da ko da ko jox léppam ndax sëriñ Tuubaa mooy koo xam ni dinaa wax ne moom jenn yitte la am muy dàkk rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laysat liya al yawma xaajaatun uammiluha siwa iqtifaika qafwa al qalbi wal badani nabiyuna almustafa xayrul wara garadi fi kulli cheyin wa ma yaabaahu abaahu nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa moo doon ak bëggam moom lay wut moom lay dàkk moom lay wër moom lay jeex ci lépp mbir mu ne itam la ca rasulullahi tànn moom la cay tànn moom la cay jéem a xeeñtu itam ngir man koo jëfee na ko rasulullahi sallallahu alayhi wa doon jëfee jeex gi jeex ci moom loolu waxtaan nañ ko ba tàyyi waaye ku ne xam na ne amoon na yittey siyaare ji rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaye yàlla dugalu ko nag ci dundam maanaam mayu ko ko ci zahir mu dem siyaare ji rasulullah sallallahu waaye may na ko eh, wërsëgal na ko xaj gu ñu nangu ak siyaare gu ñu nangu ci rasulullah sallallahu loolu nag buñ ci xamee Eh, astuut des na ci mën a natt nun ñi nga xam ne tey dañoo am sunuy sëriñ te yàlla dox doxale suñu digg ak ñoom eh, maanaam jafe-jafe am boo xam ne tax na nanu mënoon di siyaare jee xëy na mënewuñ ko noona nañ leen bëgg woon di gise itam mënewuñ ko noona naka lañ ci war a taxawe ba lanu war a am ci ñoom nu amee ko ca eh, ànd ak ñàkk gi ñu leen di ñàkk siyaare ak ñàkk gi ñàkk a dem tuyaaba ñi nga xam ne moom lañu war a am ci buñ demoon nu man ko am loolu xëy na moom lañ ciy jëlee mooy mooy bind bi nga xam ne moom lañ ciy jànge ci buñ waxtaanee diggante sëriñ bi ak siyaare ji rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ Tuuba li ko siyaare rasulullahi jaraloon lu rëy rëy rëy la gis nañ diirub Mamour Anta Sall di nekk ci kaw suufam ku ne xam ne na yëngalu dara léppam da ko bàyyee woon ak Maamoor Anta mu doon kilifaam mu bàyyeeku mbiram amutoon ak tànn amu dawul yëngal dawul def dawul dindi loolu Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana ca Irwa una dim la wax nag bi fi Maamoor jógee ca assasine boobee la tàmbali am yittey bëgg a siyaare ji rasulullah sallallahu bu ñu gisee diggante boobu assasine la tàmbalee gàmmoo axyaytu mawlida nabi min asasi boobee itam la tàmbali at mu ne mu mu mu mu mu mu jaayante waral ci boppam at mu ne dana def ay taalif yoo xam ne da koy def ci tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax da ko def bor ci ci ci jëmmam waaw eh, boobee itam diggante boobu xasida yi mu fi taalif dañuy seetlu ne amoon na cofeel gu rëy ak bëgg-bëgg bu rëy ngir bëgg a siyaare ji rasulullah sallallahu ndax léeg-léeg mu giñ ko léeg-léeg mu wax ne yaminu rabbiya mazarul mujtaba afdalu min mil il biladi dahaban wax ne maa ngi giñ ci yàlla ne ngiñul yàlla mooy sama ngiñ ne kat siyaare ji rasulullah sallallahu alayhi mi yàlla tànn day moo gën adduna sépp ñu tegale ko ba mu fees ci ci alal ci xaalis ak or ne loolu ñu tegaleel ko ko suuf sépp ba mu fees del dem siyaare ji rasulullahi moo ko gënal loolu junj na ko ci bërëb yu baree bare bari wax ci lu bare bare bari Sëñ Tuubaa bëgg mu bëgg rasulullahi day ko kawe kawe ndax bëgg la goo xam ni léeg lekk da gis mu giñ ci yàlla ne bëgg na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam billahi ahbabtu rasulullahi sa alayhi wa sallam léeg-léeg gis mu wax ne xayaati eh, wa mamaati te loolu ma ngi ci njëlbeenug eh, muqaddamatul xidma assugra daa ne billahi alladi la ilaha illa huwa العليم الكريم حياتي ومماتي وحركاتي وسكناتي مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم wax ne léppam mi ngi ko ànd ak moom ak yëngoom ak ak dalam ak nekkam ci àdduna ak ñàkk nekkam lépp daal mi ngi ko ànd ak rasul te fa sur yéene teqali ko ak moom ci leen loolu bëggu nga xam ne daa àgg ci fàttaleeku mboolem lu may rasulullahi sallallahu alayhi wa wax ne yun si fuaadi xubbuhu xubbal wara fa kayfa wa minhuma xustu jara wax ne bëgg gi ma ko bëgg fàttaloo na ma lu may moom am na feneen sax foo xam ne wax ne fàtte naa mboolem lu aju ci xeetu jigéen ñeeg kër yeeg warukaay yeeg yëpp bi man bi xubbihi nasiitu layla wa zahaban wa fiddatan wa xayla nga xam ne danaa wax sax ne adduna lenn na fi neex benn taar la am benn bànneexit la am mooy mu sallallahu alayhi wa sallam muhammadun zinatu dunia wa laddatuha salla alayhi alladi albahrayna qad maraja fi ne gis nañ ca jawharu nafis eh, nahju qadail xaaj ba koy taalif te loolu yàgg at moom am nañu jàpp ne jamonoy Tuubaa la la ko taalifee nga xam ne murid ñoo ko ñaan mu taalifal leen téere boo xam ni dañ cey jàngi ay teggin akuk taalibe tàmbali ba rek fi ne bu ca yemoon mu doy sëkk eh, maanaam lim jublu te mooy jàngale ak ay ay teggin aku jeex ci sa sëriñ ndax dafa wax ne qaala ibnu cheikhihi alladi laa yaxmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammadu kii wax de eh, doomi sëriñam la ndax Mamadou Anta Sali moo doon kilifaam di sëriñam di léppam nee waaye waaye jëmmam daal lenn rek la ci am loo xam ni lu am solo la lu mat a sant te mooy tur wiñ ko tuddee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax na gisul ci jëmmam leneen loo xam ne jar na am na solo mbaa mu mbaa mu toll nen ba jar sant qaala ibnu cheikhihi alladi laa yaxmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammadu maanaam moom dara wax ne tudd rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy sama wétalu xol muhammadun dikruhu unsi wa mafraxati wa nuuru qalbi wa aadaai wa raaxati maanaam tudd rasulullah sallallahu alayhi ak ak di tudd aw turam di julli ci moom ne loolu ci la bànneexub ci la sama bànneexub xol ne ci la sama leerug xol ne ci la sama mbigteem xol ne itam sama cër yi itam looloo koy sawarloo waaw rasulullah sallallahu alayhi nga xam ne moom danaa wax xol bi bu bu dee benn garab la am mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam roogit bu wéradee genn garab la am muy jismi wa shifaau qalbi muhammadun salla alayhi rabbi waaw ba tax na tur bi ko yi nga xam ne moom la tudd nag ñu tuddee ko yonente bi sallallahu alayhi la sallam woowu mooy li ko gënoon neex li gën a lay wax ne ahmadu hada qaala inni ahmadu fa inna xayral xalqi xayral qawli inni goo xam ni dafa wax ne eh, ahmadu mii kat eh, nee na maa ngi sant nee na ahmadu ma laa tudd nee nag wax moom la ci gën mu ngay mën a wax ne man ahmadu laa tudd ndax ahmadu mooy turu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam donc kon Serigne Touba noonu la demoon nga xam ne yonente bi moo doon léppam nga xam ne mooy sama aljana wasilati wa jannati muhammadin salla alayhi bi salaamin samadi wasilati wa junnati wa jannati faridati nafilati wa sayyidina shafiina muhammadin maanaam mooy sama farata mooy sama nafila mooy sama aj makka mooy sama lépp maanaam rasulullahi moo doon léppam buxyati himmati wa aqsa matlabi muhammadin wasilati li arabi nga xam ne eh, boo gisee dundam géppit dog ko jox addiya jumlatuma lii wa midaadi wal qalam hadiyatun lil mustafa baabi baabi niam waaw lépp lu ma am rek def naa ko hadiya rasulullah sallam loolu dañuy gis léeg-léeg mu di ko lim benn par benn bu ne joxee naa sama lépp ñëpp jàpp ko waaye bànneexu ci li mu waxoon ne tudd rasulullah sallallahu banneex wasallam bànneex lu da ce ne <laughs> loolu yi ngay gis rek mu mu koy lim wax ne xabawtuhu bi juttu lahul yawma bi ruuxi wal badan wa waladi wa walidayya fil alam mu ne jox naa ko tey sama ruuxuk bopp xam nga loolu doy na sëkk waaye teg naa ci yaram yaram it jox naa ko addiya waaye njaboot gi sama doom yi jox naa ko addiya samay waajur itam jox naa ko addiya xam nga loolu <laughs> dégg nga boo gisee njabootam gi ñëpp moom la ko tuddee yaa Mouhamadul Moustapha Mouhamadul Yadali Mouhamadul Fadilu Mouhamadul Bachir Ahmadu am na ci ñaar Mouhamadul Muxtaar ba ci assaalihu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la ko tuddee muy dem nga xam ne njaboot gépp la ko delluwaat ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon yonente bi moo doon léppam mu tegoon ko fu kawe eh, ca njëlbeen nag ba fi Maamad Anta Sali ni ma ko waxee la amoon yitte yi bëgg aji màkk loolu ñaan na ko ba tàyyi gis nañ lu mel ne xasida futuxul mukarrimi bokk ci xasida yu njëkk ya day wax ne qudniya an azurahu bi jës ba maa ngi lay ñaan nga nga xëcc ma daal wammat ma defal ma jàppandi ci moo mën a siyaare ji rasulullah sallallahu alayhi wa loolu ñaan na ko suñu borom ba tàyyi léeg-léeg nga gis mu wax ne arju bi rahmatihi al muhdaati sayyidina zawri madinatahu daara rayaxiini daarun mata ma yazurha sairun li hudan yasaat hiya daaru daarul xaq wa diini maa ngi ñaan ci daraja yi yërmande yàlla ji di rasulullah sallallahu alayhi wasallam nga xam ne yàlla ko xéewale jaam ñi maa ngi ñaan ci dara jaam yàlla may ma ma siyaare ji madinaam ja mooy dëkkam boobee di madinal munawwara ne daaru rayaaxiin ne dëkk la boo xam ni dafa euh, neex ndax dafa xeeñ xunn ak gëtt gu neex goo xam ni mooy gëttug nekk ga fa rasulullah sallallahu alayhi nekk daarul mata ma yazurha sairul hudan yasaat ku ko siyaara rek tak njub tax laa jub xol bu feex nga fay nekke te adduna ak alaxira moom nga fay jële maanaam ni muy waxee dëkk ba ak nam koy misaale loolu yi sax nag leen am na ci mooy fi ne fii ak demoo ba biir ma Madina mun a war mënoo dégg bayit woowu sëñ bi wax maanaam dëkk ba moom am na lu fa ne loo xam ni ruuxaaniye bu fa ne boo xam ni bu kawe kawe la boo xam ne boo fa nee saraax rek yëg ko suñu wax ne daarul matama yazurha zairun li hon yasaad ñaan na ko ba taay yaa rabbi zawral bayti wal madina suñu borom maa ngi lay ñaan nga may ma siyaare sa kaaba ga ak al madina al munawwara ziyaratan an riya masuna léeg-léeg sax muy mébét yaa laytani qad zurtuhu bi jasadi ka xaatiri xatta yuzila awadi wax ne ak a neexoon ma man ko siyaare ji sama jëmm man ko siyaare ji ni ko sama xel mi siyaare ji ndax xel mi moom du fa jug xel mi waxtu ne ma ngay dem ak a dikk moom yazuruka minni xaytuma kuntu yaa fu fuaadi wa ruuxi eh, sama xol bi ak sama ruux gi moom waxtu ne mi ngi lay siyaare si waaw fu ma mën a rek wax fu mën a nekk rek maa ngi koy maa ngi leen di yebal ñëw moom ruux gi moom waxtu ne du jug ci waaye nag ak a neexoon jëmm ji itam ma man ma man koo tuxal mu siyaare ji la ni ko ruux gi defee loolu wax na ci ba tey wax ne ak a neexoon ma mën a dugg ci bëgg ci dëkk boobee ba mën a fëriñ sama lex bi ci suuf soosee yaa laytani marraghtu inda qadami xaddi aw laxadani bi karami gis neen léeg-léeg mu mel ne ku ñeewaa madinal munawara ci dëkk gañ dëkk rasulullahi war ko <laughs> loolu am na xasida gi nga xam ne moo tàmbalee ila nabiyin rasulin jaa ana bi hudan wax na ca ne ahlal madinati minni sarmadan lakum abqa salaamin yutibu alqalba waljasada laa ziltum addahra fi shawfin fi safwin wa tawsiatin yakfikum allahu fi ddaareni man anada fuztum bi kawni ibni abdillahi jaarakum wa kawnikum xawlahu faltaxmadu samada ne yéen waa madinal munawara maa ngi leen di nuyoo maa ngi leen di yónnee nuyoo bu teey bu sedd xol te mën a saralu yaram mooy maa ngi leen di nuyu nuyu ba gën a kawe daal yàlla na ngeen sax ci jàmm ak xéewal te yal na yàlla fegal leen mbooleem mm, noonu yàlla yi waaye nag da ngeen xam ne am ngeen xéewal fustum bi kawni ibni abdillahi jaarakuma dëkk gi ngeen dëkkaaleeg waaw fustum bi kawni ibni abdillahi jaarakuma wa kawnikum xawlahu faltaxmadu samada maanaam am ngeen xéewalu dëkkaaleeg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam doomi abdullahi ji sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye wa kawnikum xawlahu mooy nekk yi ngeen nekk wër ko waaw moo gisee xam nga madina gépp nañ dëkkee yonent bi daa nekk ca bërëb ba tabax yi wër ko kër yi wër ko wa kawnikum xawlahu nekk ngeen nekk daal ci wetam wër ko xéewal la gu rëy moo tax fal taxamadu samada na ngeen sant yàlla bu wër wër ci li ngeen nekk ndax loolu bari nañu ko mébét bari nañu ko bëgg ñoo xam ni cofeelu ak bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo tàkk ci seen xol ñu am yéene bëgg faa ñëw te mënuñu ko ñëw wax ma laa nag dëkk ak moom moo tax mu leen wax na ngeen sant yàlla bu baax a baax a baax moom ci wax ne sama xol leen rek moo koy moo koy seral te mooy mën a siyaare ji rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yu tayibul fuaada zawrul bayti ma al madinati qubaylal fawti bala ma fay jóge daal bala maa génn adduna rek moo mën a seral sama xel sama xol mooy ma mën a siyaare ji rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ku ne xam na nag dafa amoon gàllankoor moom gàllankoor yi wax na ko ba tàyyi wa huwa alladi iqa jismi an ziyaaratihi lakin lisaani lahu kal qalbi zawaaru maanaam moom dañoo gàllankoor sama jëm ba maa dem siyaare ji waaye sama làmmiñ ak sama xol waxtu ne nag ñi ngi leen ñu ngi siyaare ji moom làmmiñ bi moom waxtu ne bi ngi siyaare ji xol bi itam waxtu ne mi ngi siyaare ji waaye jëmm ji nag moom dafa gàllankoor am na feneen fu mu wax ci futuuxul mukarrami wax na fa ne qasadtu zawrahu wala hawla wala quwwata illa bil ilahi musjida maanaam bëgg naa ko siyaare ji waaye nag benn pexe ak benn kàttanu fi ne awma ko bu ma ko mën a defee eh, gàllankoor boobu yi nag ku ne xam na ne moom Sëriñ Tuubaa xam nga eh, bi fi Mamadou Anta Sali nekk jóge diir bu néew lañ ci teg bi mu ñëwee Tuubaa xam nga la ko eh, tubaab yi jële ko fi yóbbu ko ci géej gi juróom-ñaari at ak nangam ñëwee tam réew mi def fi juróom benn weer ñu yóbbu ko gànnaar ñeenti at ginnaaw bu ñu yóbbu ko Thiène Jolof juróomi at ginnaaw bu ñu def ko résidence surveillée fii ci njëriñ ndax ne moom moom dañ koo gàllankoor moom tubaab ñoo gàllankoor njëkk loolu itam waaj na waaye waaj na ba jekk fi at mi mu bëgg a mi mi mu demee ci tukki bi ci géej gi waaj na ba jekki ba jekk sëñ Basiru nee na waxtaan na ci borom daal mooti sëñ Madlim ju da nga nee na wax na naar bi nga xam wul da Hamdul Abhumi nee na ko demal gànnaar nga waaj boo ñëwee ren ren ren ren aji waaye ba mu naar bi ci moom nee na ba mu demee ba gànnaar di waaj ci laa dégg ñu ne yóbbu nañ ko ci géej gi kon moom jekk na ba war a siyaara ji waaye gàllankoor boobu léeg-léeg dawul gis Sëñ Tuubaa ak mbaaxam mooy lépp boppam lay gis maanaam jafe-jafe bu jàpp ne moom na ma jégal li muy tudde sikk ne loolu ay sikk la ko tudde daa ne sikk si ma am xëy na rek moo tax yàlla nattoo mënuma ko siyaare ji ndax siyaare waa eh, sëñ ba sëriñ ba te loolu kenn ku ne mën na koo xiyaas sa sam sëriñ maa am tawféex waxtu na ngay siyaare sa sëriñ nii loolu tawféex ju rëy rëy la fi ne gis naa borom Daaru Muxti mi si ñu nekkee gànnaar am na lettre ci lettre yi boo xam ne wax na ko ne ren boo ñëwutoon siyaare ji boo ñëwutoon siyaar si mbooleem ñii la bëgg danañ am lu la naqari ci yow nga xam ne siyaar ga mu siyaar si moo fekk loolu lépp gis na itam ci majmuwa bi sëñ Blaat Guèye mooloon am na kum ca ci mag ñi kum ci wax ne ko euh, lettre bu mu ko bind am yu mu ko wax ne ko lool yi de mën nga ci jàpp saafara la ci li ngay tawat li ngay jàmbat waaye nag la ci des moom jëmmoonte rek koy moo koy mën a saafar mooy nga ñëw nu siyaar si waaye siyaar bi da day lu rëy rëy da cee jub ngir yàlla loolu cofeelu suñu borom da cee ne sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sahihu muslim gis nañ yonente bi wax ne daa am waajoo dafa jugoon doon siyaare ji mbokk mbokkam moo xam ne waaju baax la suñ borom yabal am malayka mu gàttalu ko ci buntu dëkk ba ne looy wut ci dëkk bi waa ji ne ko man kat daa am ko ma fi siyaar si mu ne ko lu ngeen seq ba nga koy siyaar xaa da ngeen am commerce bu ngeen seq wala xaalis bu ngeen seq wala day sa mbokk ci askan wala lu tax mu ne ko loolu lépp amul dama koy siyaar te yàlla rek a tax malaaka ma feeñu ko ne ko suñu borom moo ma yabal xamal ne xamal xamal ne suñu borom ci moom na la boppam ngir jug gi nga jug ngir moom maanaam jóg ngir yàlla te lu rëy rëy rëy siyaar eh, am solo lool waaye Sëñ Tuubaa nag ñàkk gi ñàkk mën a siyaare ji loolu ku ne xam ne am na gàllankoor yu leer moom waaye gàllankoor yooyu gisu ko woon moom daa jàppoon ne jëmmi boppam ak sikk na ma yàlla jégal ju nekk ci moom moo tee mu am tawfiix mën nga siyaare ji moo tax gis nga bi marxihi si ma am daal rek xam naa moo tax ma gàllankoor bu mënuma koo siyaare ji am na feneen fi wax ne loolu sax na sikk xam naa bakkaar la moom ay bakkaar yore yoo xam ni moo tax mënuma siyaar bi yàqu ni dambi xatta lam ara wa lam ara al madinata al munawwara waaw li tax mënuma teg bët rasulullah ci lu ay nelaw li tax mënuma siyaare ji dëkkam bee mooy bakkaar laa am xam naa yu yoo xam ni moo tax moo dox sama diggante bakkaar yooyu dañuy gis léeg mu koy jégalu xafaaru li xafir dunubi wafkukan kabali bi man alaya li tarki zawrahu aaru suñu borom maa ngi ñaan nga jéggal ma samay bàkkaar te dindi samay jéng xob bi samay jéng ci daraja yonente bi nga xam ne ñàkk gi ma ko ñàkk a siyaare gàcce la ci man bi man li euh, bi man àlla yëli tarki sawrahu aaru maanaam ñàkk gi ma ko ñàkk a siyaare ji loolu la ndax woote li may woote ci bëgg ko andut ak ma toog bañ ko siyaare ji <laughs> bi man yu xaatibu ni fii zawri rawdatihi baytaani min qawli man bin olfi amaaru zur man tuhibbu wa in chattat bika ddaaru wa xaala min dunihi sahlun wa awaaru laa yamna'annaka bu'dun an ziyaaratihi inna al muhibba liman yahwaahu zawwaar nee na dafa am bayit yoo xam ne waa ju baax moo ko waxoon waxoon ne ki nga bëgg dëgg-dëgg lu sa digganteeg moom sore sori sori dalaa war a jaral nga jug siyaara ko sa digganteeg moom daal lu sore sore lu ay gott dox ci diggante bi ak i joor ak i eh, jànji nee na loolu wërtatee maanaam boo bëgg dëgg dëgg bu wéree loolu wut a dox sa diggante ak siyaara ji ko moom sa yitte yëpp da war a nekk ci nga dem siyaara ji ko maanaam ak soree daal wut a dox sa diggante ak siyaare koo bëgg bu bëgg a wéree fa innal muhibba liman yahwaahu sawa nee na bayit yooyu nag neen fu ma ko dégg rek day mel ne man lay waxal moo tax toog gi ma toog daal ñàkk ko siyaara ji loolu daal ma gàcc la ci man loolu la suñ tu foofu la suñ tu àggoon moo tax léeg-léeg sax ñu gis wax woo xam day mel day xaw a waxiinu tiitaange xam nga bëgg ak tiit dañuy ànd waaw xaw naa nekk ci àdduna ba jóge fi te teguma ko bët wala gisuma ko loolu daal moom yesu uni mawti wa ayni lam tara walam aral madinata munawara loolu wax na ko wax na ne yesu uni aybi wa ayni lam tara walam tara al madinata al munawara gis nañ ci njëlbeen nga def na xasida goo xam ni eh, maanaam gu gu gu rëy boo xam ne yaakaar naa ëpp juróom-ñetti bayit waaye wax na ci ne fal qalbu yahtazu xubban rawdatihi xanaa xol bi mi ngi gësamu fi ne nga xam ne amatul ak dal mënatuma ko am dal xol bi daal fi ne muytuma jàmm mi ngi gësamu bëgg si yaara ji raw dub rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom yaa laytani tirtu mooy ak neexoon ma mën a naaw <laughs> yori laaf mën a naaw aw lii kaana durnuufu wala ma am gileem gu rëy gu mën a dog gott bi aw niltu zaadan baliixan wala ma am yóbbul boo xam daal dana danaa ko mën a yóbbuloo ci yoon wi aw qadartu ala qat'il mahaamihi wala ma mën a dog gott bi gott yi daal li muy rëy rëy sama digg ak xëy na sori na àll baa ngi fi géej yaa ngi fi xëy na waaye ak neex na mën ko dog xaytu shawq ma'luuf li kay azura rasulallahi maljaana bayt yu rëy ci ak cofeel wax ne fal qalbu yahtazu xubban zawra rawdatihi yaa laytani tirtu aw lii kaana durnuuf aw niltu zaadan baliigan aw qadartu ala qatci lmahaamihi xaytu shawqu ma'luuf li kay azura rasulallahi maljaana yowma alqiyaamati mahma xaaza taxwiif kon sëñ Tuubaa foofu la nekkoon amoon it tey bëgg a siyaare ji rasulullahi waaye nag tubaab yi nga xam ne ay noonu yàlla lañ ñoo ko gàllankoor yóbbu ko ci géej gi lu mat fanweeri at ak ñaar ci dundam ñu yor ko di ko kël-kële ci loo xam ne defu leen dara moom deful waxul moom waaw ah, sëñ Tuubaa deful waxul tooñul kenn itam mësta rey sax melentaan mësta wax ci keneen itam xam nga loolu ak tooñ mënu mënu kii moo tax am na fu mu wax ne fu mu leen wax ne zalamtumul abda alladi la yantaqim li nafsihi maanaam tooñ ngeen jaam boo xam ne moom dadul fayu ngir boppam rek moo leen ci musal waaye li ngeen ko def ëpp na xam nga moo ko jëmm nga génne ko ci njabootam fanweer at nangam loolu xam nga ak tooñ mënu ko rëy gënu ko rëy teewul nag bi mu xamee ne mënta siyaara ji rasul lay nag ci la tàmbali di ñaan nag suñu borom ngir mu wan ko ko nag ci lu ay nelaw kulla zamanin la azalu atlubu liqaahu wa artaji wa argabu kabura azza ma talabtu ya aziz minka wa ma huwa alayka bi aziz di ñaan suñu borom ne ko maa ngi lay ñaan lu rëy loo xam ne xam naa ne moom rëy na lool waaye nga wan ma ko ci lu ay nelaw nag loolu yi ñaan na ko ba tàyyi eh, gis nañ ci eh, ala man alayya wax ne ilahi fasalli bi gayri intiha ala almustafa dil muhayya sabih ginnaaw bi wax ne salatan turini huna wajhahu iyanan li yashfiya qalbal jarih maa ngi julli ci moom julli goo xam ni dama ci fas nga wan ma ko nag ma gisee moom loolu bi mu nekkee fii ci Touba ca ay sasin mooy mille trois cent onze ca weeru koor wax Cheikh Abdoulaat Mbacke mu baax ma wax na ne ci bi muy kaa foofu ci jàkka jooju ci Daaru Xuddoos sëñ Bachir wax na ne ca la njëkk gisee Rasulullah sallallahu alayhi ay nelaw loolu sëñ Bachir a ko wax awalu ma aayana rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam waaye bi mu ko gisee da ko gis ci mu mel ne lu mel ne rido lañ doxalee diggante mu moom mu gis mu ànd ak ñenn ci ay saxaaba waaye sëñ bi xam nga loolu doy ko mu ne yonte bi moom lii bëgg naa ci loolu waaye nag dama laa bëgg a jege nag bëgg na jege gaañoo yonte bi ne ko ah loolu it nag boo ko bëggee du doon lu yomb ndax ñii dañoo ànd nag man di taxawal diine ba joxe ci seen bakkan muy waa lu badrin léegi nag li ñu am boo ko bëggee am faw yow it ay maanaam nga sa yitte di taxawal diine te itam da nga ci daj loo ne te loo ci dajit nga muñ ko tuddoo dellu ginnaaw sartoon teg moom sart yëpp ba àggal yun sëñ sëñ tuwaa nangu sart yëpp loolu moo tax bi muy dem ci géej gi foofu la ko tàmbali gis nag gis boo xam ni dara doxu seen diggante seen diggante diiru géej bi itam géej gi itam léeg mu gis ko léeg-léeg mu mu mu du ko gis waaye bi ne ba gànnaar nag ca dëkk sa sin foofee la wax ne daama rasulullahi nusba ayni fi ne mu waxtu ne maa ngi jàlloog moom sallallahu alayhi wa kon eh, loolu liñ ci jànge rek mooy pas-pas ak pësteef ñaar yu mënta ñàkk ci ab taalibe Sëñ lii mu am li ko may pas-pas bu kawe la ak pësteef bu bu rëy ak bëgg gu wér itam ak mu jaral la itam mu jaral maanaam léppam dami wa ahli wa awlaadi fidaau lahu maanaam léppam da koo joxe ngir rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maanaam maanaam eh, maanaam ginnaaw li féeg yow sëñ bi eh, wut alali adduna wala sa kërug bopp wala sa njaboot maanaam ji jiital nga ko ci kaw sëriñ bi rek xamal ne yow dese nga sëñ tubaabam fa nekkoon mooy léppi adduna moom da ko teg nale jiital nag bëgg mu bëgg rasulullah sallallahu loolu moo ko may li mu am lépp ci yàlla akub yonente moo tax mu am ci lu kenn amul ndax parce que ba mu ci doon doxee wax dëgg yàlla yombatul nga gis ku ko ku ko ku ko xam rek wala ku ko séen wax mu laa nag ku ca nekk kon loolu euh, talibe itam loolu rek moo nu war kenn ku ne euh, Cheikh Abdou Khoudous mi Mbàkke mu baax ma daa wax ne la fi nekkoon jógu fi waaye nañ ko daa wute moo moo moo soppi ko nga am ne ne mbir leen la fi nekkoon lu ci waay wut nañ ko daa wute rek dañ ko amee nañ ko daa amee ndax sëriñ si masalan joxewuñ yàlla mooy joxe maanaam pas-pas bi ngay am ci sëñ bi loolu danga koy def ngir yàlla bu ko dee yàlla nag mooy gis ne boo gisee ne dëggu nga te mu nattu la ba xam ne li nga ne wér na ci yow rek mu jox la li ngay sàkku moo tax kon lu way bëgg rek ci lu baax ci li nga xam ne moom la mag ñi daa am ci sëñ bi loolee lépp mënees na ko sàkku ba ba waxtu wi aji na pas-pas aji na dëggu aji na wér añu def te yàlla kese kese tax sellal bañ bëgg ku xam lii ak ku ko gis bañ ci wutug cant def te yàlla rek tax loolu lépp la aaje noo ngi jégalu lu baax di delloo nuyu sëñ eh, koso mi nga xam ne mooy su mooy sunu bunt ci sëñ kara di siyaar sëñ bi bu baax a baax di siyaar itam mboole mbokki taalibe yi di ñaan yàlla mu àggal na ci jàmm te mboole mi ñu ciy def ci lu baax lépp yàlla nangu ko fayal na ci sunu kilifa yu baax yooyee wasalaamu aleykum wa rahmatullah wabdana makarim al axlaaqi ma zaaku min bila siqaafi wa ya zalilana yuwaqiru lkabir wajal kabirana yuridu lissagir تناسل ولا تحاسد